asalaamaaleykum askan wi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi ñaanal suñuy waajur di dugg ci hôpitaux yi di ziar malaat yi di ñaanal ci prison yi di ñaanal kilifa diina yi ak kilifa aada yi yàlla leen fi yàlla bàyyi di nuyu waa diaspora maa ngi nuyu ñëpp tey nag dañu ñëwaat ci émission salaam Santé bi ñuy def euh, chaque mercredi ci waxtu wi tey nag dañoo ñëw pour waxtaan ak mhm. ci mbiru dalal jàmm mhm. parce que askan wi ñu ngi jooy mhm. ñu ngi ci biir hôpital hôpital bi ñu ngi jooy tey nag ma dalal fi sama benn xarit di journaliste boo xam ni dafa yàgg ci gëstu ci affaire santé ma bàyyi leen mu nuyoog yéen ñu koy woowee doyen Sakho Sakho maa ngi jox euh, kàddu gi pour nga nuyoo présenté wu. Khady Diouf maa lay gërëm la sant di gërëm euh, tous les téléspectateurs de Salam Vision euh, émission bi macha allah émission bu neex la jëmale ko si mbirum wér gu yaram en tant que taskatu xibaar yàgg naa gistu di saytu mbirum wér gu yaram fii ci réew mi euh, pendant plus de vingt ans war naa hôpitaux yu bare bés dalal jàmm bi nga xam nag jamono Abdoulaye Wade lañ ko inauguré. je pense que 2011 xaw ma 2012 xali euh, bu si kanamee naa la tontu si mbir moom. waaw jërëjëf euh, Sakho Sakho question bi ma lay njëkk a posé mooy dalal jàmm. Mm. dafa nekk hôpital boo xam ne hôpitalu banlieue la. Mm. banlieue bi ñoo ko moom. mu yàgg lool Ablaye Wade président daf ko fi. mais ba léegi daal. dañu xool ne biir dara jàmm. dara ah, doxu fa. Mhm. amuñu fa dara loo xam ne. Mhm. waa banlieue bi gis nañ ci seen bopp. Mhm. parce que ñoom tey ji boo fa duggee dafa sa consultation dañuy mujj obligé bindal la loo xam ne da ngay génn di defi ay rajo ci ci mu loolu nag muy jàngatuwaa askanu banlieue bi. surtout géejawaay gi mu nekk malay laaj nan nga gisee problème mu dalal jàmm. Khady posé nga question bu am solo. Euh, Ablaye Wade dafa nekkoon xam dafa nekkoon président bu am gis-gis xam nekk un panafricain euh, hors pair daan toog ni incha Sénégal bii naa fi tax benn hôpital boo xam ni ñëpp dañ koy coow dans la sous mission bi dalal jàmm bu ñu nee dalal jàmm si wolof ñëpp xam nañ lan lan lan lay tekki dal ak jàmm mooy hôpital bi xadi tey boo ko séenee nga romb si karab yi baa nga romb si njëriñ yaay dem naan eh hôpital bi moo rafet. macha allah mais moo doon gis-gisu président Abdoulaye Wade ak gis-gisu gouvernement bi fi nekkoon mais tey xarit boo duggee tey biir Dalal Jàmm sa yaram dafay daw man dem naa fa def naa fa ay gistu ay reportage ba may nekkoon si yeneen xibaar yeneen yeneen yeneen yeneen média mais li ma gis si hôpital bi xarit dafay gën di jéggi dayoo amul jumtuwaay amul euh, médecin yu doy amul euh, yenn logistique mais xarit loolu dafa métti. parce que war ran ni lii mooy sama rêve pour tous les Sénégalais muy waa Golf waa Pikine waa Guédiawaye gis ñu seen bopp xali si dara jàmm xali métti man je pense hôpital mel ni tey euh, ñi fi nekk l'actuel gouvernement euh, bi fi nekk muy le président Sall et son gouvernement war nañu mën a gëstu population banlieue bi xali euh, ak ko waa doyen Sakho jërëjëf ci leeral bi nga leeral mm-hmm. bi ma lay laajaat mooy nan nga jàngatee mhm. coono waa banlieue bi ci mhm. hôpital bi mhm. tey ji bu ñu tabaxalee lu day ne hôpital Dalal Jàmm te mënuñ cee gis suñu bopp lii dama lay laaj ndax lii du pertement mais xadi perte la hôpital boo xam ni ay milliards lañ si def hôpital boo xam ni mu ne la référence fii Sénégal ak Afrique pourquoi pas xadi mais loolu perte de temps perte xaalis la li ma mën a expliquer daal xadi nañu gën a euh, def ay états généraux de la santé xale yi. pourquoi pas états généraux de la jàmm. tey boo xoolee tey hôpital rek fu dem sa xol dafay jeex xale yi amul benn loo xam ni amul lépp amul loo xam ni tey Sénégalais yi gis nañu ci seen bopp. ma ne da nga fay romb mais sa xol dana sa xol dafay jeex xale yi nga war a fay ticket ay ticket yu cher xale yi ah euh, amatul matériel nécessaire dañ dem ba population yi dañu découragé dañu obligé bàyyi euh, askan bi jóge seen ngox dem ba ay Dantec ay principal yu faju xam loolu métti na xadi man je pense que loolu euh, lu mel ni euh, autorité locale yi fi nekk mooy mairie yi mooy gox gox yi ñoom ñoom tamit war nañu ges population yi mais koo xam dëkk boo xam ni xadi lépp politique la taluñu askan bi euh, mbii coog mbàllo bu léeg bëccëg mais dala jàmm naka lay mën doxee xadi en tout cas aspanu banlieue bi gis ñu seen bopp xadi jërëjëf Sakho mais man li ma lay laajaat mooy ministre de la santé nan nga gisee taxawaayam problème yi am ci banlieue bi néew ju doole ji ñu ngi jooy. Mm-hmm. askan bi daal ñu ngi jooy ndaxte mm-hmm. da ngay tase kenn sax di ko laaj. Mm-hmm. mu ne la pour ticket bi rek. moo gën a metti ci ndax lu day ni hôpital banlieue. banlieue xam nañ ni néew ju doole ji ñoo fi nekk. ministre de la santé. taxawaayam ci biir banlieue bi. ma lay laaj ndax yow rafetlu nga taxawaayam ci biir banlieue bi wala déet. xadi mënuma tëb la euh, rafetlu naa présence su le ministre de la santé Abdoulaye Diouf mais mun naa la firndeel ni euh, ku pare pour liggéey boo xoolee Covid bii def na si ay jéego yu am solo en tant que ministre de la santé moom la ñu waxoon meilleur ministre de la santé benn bataaxal boo xam ne sur le continent africain maanaam Abdoulaye Diouf Sarr Covid bi def na si bay na si ay waar mobiliser na ay des centaines de médecins euh, ñu def ay campagne de sensibilisation ni ngi jóg di daanu di xartantuwee guddee bëccëg xat yi mais de des na. du mën a def lépp mais des na xadi xanaa di di dànxaafuwaat nguur gi le ministre la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr et toute son équipe ñu gëstu banlieue bii xadi xadi tey xoolal hôpital bi am Pikine hôpital Pikine bi am na ay problème dafa cher boo fa demee tey euh, consultation xadi c'est beaucoup d'argent askanu Pikine askanu banlieue bi amuñu moyen état bi ñoom ñoo ñoom dañuy waxal ne ñoom nañ jàppale banlieue bi génn leen si ay jafe-jafe ay lënt-lënt mais li ñu gisee si banlieue bi nit ñaa ngi béy guddeeg bëccëg bi ay père de famille yoo xam ne xat yi liggéeyuñu gor ñu yettuñu bëgg a aussi hospitaliser sa jabar say doom kooku charge financière la. di war nguur ga ñu gën a góorgóorlu hôpital jàmm dalal jàmm bi xat yi nañ ko xoolaat bu baax a baax euh, nekk hôpital boo xam ni bu mucc ayib mais ñu ngi koy bëgg a yàq te nañu bàyyi politique bi leeral askan bi ko dalal jàmm doxul tey doxul la waaw ah, jërëjëf Sakho balaa may ñëw ci PCA bi. waaw ma question bi ma lay posé balaa may ñëw ci PCA bi ba ñuy tàggatoo. mooy banlieue bi ndax jotul. Mhm. ñu dimbali leen nguur gi dimbali leen. Mhm. parce que banlieue bi dama jëlale hôpital Dalal Jàmm. Mhm. mais hôpitalu Pikine bi. foofu dama euh, moom tikkeem sax. man d'après niñ euh, question kii yi ma ci. Euh, am gëstu yi ma ci am. ñoom ñoo gën a cher le sax hôpital Dalal Jàmm ah, te loolu est-ce que normal na mm-hmm. lu day ni banlieue mm-hmm. bu ñu tabaxee hôpital ci banlieue bi mm-hmm. man yaakaaroon naa ne coono banlieue war na jeex doyen Sakho posé question bu am solo la coono banlieue dafa war a jeex Khady xam nga banlieue sax dañu leen yàgg yàpp Khady depuis 1960 wala 1960 ba léegi mais Sénégal sur le plan sanitaire avancé wul ñi fi jaar ñëpp nekk ministère la ministre de la santé mun naa li ñu seen tur parce que man damay gis suñu ministre ni mbirum santé du ma médecin mais damay dox di xool hôpitaux yi ko doxul mm-hmm. ma ne ngir yàlla nañ delloowaat njukkal hôpitaux yi xadi boo demoon tey banlieue am nay poste de santé lu mel ni Dominique lu mel ni Roi Baudouin mais xadi seeram dafay daw xadi mm-hmm. médicament amul xoolal famille ñuy accouché xoolal euh, maladie tëdd si si si si si si perron yi opi si véranda yi mm-hmm. faalewuñ leen gis benn benn vigile boo xam tey qui se transforme aujourd'hui xar yi. en sa doxuma la doxuma la sa yàlla bu la ah, dee. Ah, ah. foofu laay ñëwaatee ci yow. Hmm. mais parfois dangay ngay da ngay dem. Hmm. di romb ci hôpital yi. lu day nit ñi taxaw fa. ñi yor seen ordonnance yi di hmm. yalwaan. loolu ñooñu ci banlieue bi lañ dëkk. am na mais loolu wax dëgg yàlla. ministre de la santé. moom it defe naa banlieue la dëkk. kon nag dañ ko moom lañu bëgg. nga ñu ñaan ko. Mm-hmm. pour mu xool banlieue bi. xool askanu banlieue bi ñuy do doxalee. Mm-hmm. bi ci topp mooy. PCA bi. Mm-hmm. Pape Ablaye Touré. dafa démissionné. démissionné na d' après bi ma li ma dégg ci moom. man tooguma ak mais li ma dégg gëstu naa ñu ni moom hôpital bi dafa ne amul benn moyen. amul dara doxu fi. et puis amul benn matériel boo xam ni. moom euh, poussé na ko. pour mu toog ci hôpital bi. Mm-hmm. looloo tax mu démissionné. Mm-hmm. ma lay laaj loolu loo ci xam. Euh, poser aussi question am solo Pape euh, Pape. Euh, Pape Ablaye Touré mm-hmm. professeur d'université la professeur de médecine xam nga ko boroom xam-xam la macha allah. présidentiel moo ko fal PCA xale bu ñu nee PCA. mooy président du conseil d'administration. moom moom am na am na responsabilité. di xool ndax. hôpitaux bi mi ngi dox ndax doxul. dafa dem ba tekki ndox moom kenn ndax moo ni man bàyyi naa. ba li ma gis doy na waar. lu mel ni dalal jàmm tabax ko pour askan bi. amul benn jumtuwaay amul benn amul benn firndeel. man tekki naa sama ndombal tànk. kooku dafa nekk professeur bu xarañ si problème problème médecine. Euh, li gën am solo xel yi mooy li ma lay wax rek xel le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr euh, di woo le président Sall bi nga xam nag moom. Euh, mi ngi attaché une importance particulière dans le domaine de la santé moom moo ko wax de du samay kàddu. Mhm. ma ne lañ delloo njukkal hôpital Dalal Jàmm. Mhm. Pape Abdoulaye Touré bu démissionné xëy na c'est ses propres idéologies. Mhm. moom moo boo gisee mu tekk ndomal tax moom xam lu tax mu bàyyi. mais damay waat que bi rek ñu gën a góorlu te bàyyi yenn naxaate yi xat yi nit ñi sonn nañu. amatuñu ordonnance euh, askanu ban du askanu ban mais Sénégal nit ñi dañu sonn xat yi politique moo ñu tànn sur le plan ma ne li xew dalal jàmm xat yi boo forombetee def si benn reportage talal sa micro askan bi foofu dañu naan saa waay ah, nga ñëw mais fii kenn gisu seen bopp si biir hôpital bi xëy na loolu métti jërëjëf euh, Sakho léegi ma lay wax sa kàddu bu mujj di rafetlu tamit mhm. euh, dalal bi ma la dalal ak wax dëgg yàlla temps amul mhm. te dañ ñu accepter euh, waxtaan bi tey mhm. plateau bi ma lay laaj nag sa sa kàddu bu mujj bon xarit di la remercier remercier aussi Salam Santé nekk émission mu ayib émission bu neex macha allah li ma lay conseillé wu xadi xadi demal si hôpitaux yi man Dominique Biré dem doxandu fa xadi nga xool. Mhm. doomu Pikine nga. demal Roi Baudouin demal yenn ba hôpital Pikine bi ñuy coow nii. Mhm. bare na ay jafe-jafe xadi. Mhm. Euh, ma ne hôpitaux yi soxla nañu ay ndimbal. ñoom bëgg nañu ce qu'on appelle médias yi leen jàppale ku mel ni yow def émission Salam Santé. xaru leen yoral sa micro ak sa équipe de reportage ngeen dem ba si gox ko xadi xadi boo demee ba si dëkku àll yi. xam ni say xadi. sant jar lu nekk jigéen ñi accouché si kaw saret si si si ay pousse pousse xale loolu met yàlla incha allah musal di la góor di di la ñaax xale nga gën a góor góorlu émission bi yàlla na gën a jëm kanam yàlla na si yàlla def barke yàlla def su gërëm waa waa Salam Santé jërëjëf. jërëjëf euh, lii moo nekkoon seen émission Salam sante ma dalaloon ci suñu journaliste bi nga xam ne day gëstu ci wàllu santé mhm. muy doyen Sakho mhm. maa ngi remercier waa Salam Vision. di remercier euh, adduna bi yëpp mm-hmm. rawatina nag waa diaspora bi mm-hmm. di leen wax ni leen nag dama leen di jox rendez bu àllarba bii di ñëw incha allah ci waxtu wi ci biir salaam Vision maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal nag mm-hmm. ministre de la santé loxo di ko wax Ablaye Diouf Sarr di ko wax man Khady Diouf maa lay tàllal loxo di la wax ni daal banlieue bi daal gestu leen gestu leen gestu leen jërë ngeen jëf. nekk leen si jàmm. jërëjëf